internet grand théâtre point tv ñu ngi leen di xalaat bu baaxa baax tay nak ñu ngi ci lamb ji nga xamni ni jey production mo ñu fi wo ci ñaari espoir ñaari ndanan xale bi nga xamni ni mo moy Serigne Ndiaye numéro 2 ak kan Libidor bu Grand yof mbolo ni dina am beure dina am xex tay nak fi lay xewé ci grand théâtre point tv lay xewee sama gars yi ñu dem xol combat yi jul ci yoon sant suñu ñaari ah di waa waajur jënd rek yëpp ñu ngi sakku ñaan ñu tan tàllal yi tey doo ñu tur nag suñu doomu ndey suñu lépp muy Libidor préparé nañ ko war a préparé def nañ lépp lu war a def lu ñu yaakaar ne bu ko defee am ndam rek def nañ ko. mais bii nekk première sortem mu ñëw écurie Kayar jóge Grand mbooloo loolu ban yëg-yëg nga ci am. combat bi combat bi si man la gën a métti billaahi wallaahi wa taalaahi moo yoroon ndam tey di ko joxe combat bi du am ndax tey dama nekk écurie Kayar nekk fa ay booy moom sama rakk la si man la si man la jógee tey mu dem jàngi xam ñëwaat ci man. kon tay luma meuna def kum daan rek dama ko wara def jam teeri yeb wa Fass lol kum ci ciy war a ak ñom ba jox ko secret bi billahi wallahi wa taalaahi combat bi muy gëna yom ci katunu yàlla parce que limi parwa préparé nañ ko xam nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax kooku mooy jam teeri mais ci lol na gaay yi gisuñu la fani man ma jëli taxaw na le 23 février le 23 la février maa jëli da da forme bi tarkal la la wax waa Kaar ni len ñu ñaanal ñu tay ñu daan limi dor le 23 février ñu ñëw doli wat ci katunu yàlla mais mbër lii lan la tey. non lii sant yàlla rek. kankang tey noo waajee. nu ma waajee ñëw xanaa jàpp daan rek. ani supporter. supporter yaa ngi nële. supporter yaa ngi noonu. waa kër Mor kankang yaa ngi noonu daal la. nee na gars yi jóg leen. laay lay la caw. caw noo waajee xale bi tey. waa gis nga moom daanaan la ëpp yow dafa neex a digtal yaa ma xale la boo xamante ne nii sama rak la mais lu ma ko wax Seydina Mohamed lu ko waay wax rek dana laajal caw xam nga loolu rek cër la moo tax tey xoolal dañ ko préparé ni ko war a préparé nga xam ne ki muy bëreel tey jii moo ko jiitu si làmb bëre na ak champion yoo xamante ne nii moor bëreewut ak champion yooyu waaw moo tax ñu waajal ko waaj boo xam waaw moo tax losot la losot la war a dajeel waaw losot la war a dajeel waa xam nga kay bëral losot du ngay bëral waaw amul problème ndox mu set rek ndox mu moom laa ci fi def bor kankan taala ngaay mok lo soddu ñoy bëree lañ lan dem xol lo soddu nan la waajee fi tay du yomb di dem. sifflet di ngeen ci rendre compte. ñu gëjoon la gis fa sorti mu am yëpp ñëwoo ci tay nga ñëw ci Serigne Ndiaye de lan la. waaw li tax ma ñëw fas ñëwlu waaw loolu moma andi ci lamb ji tay loolu mo leen ci lamb ji mom lo xamni ni fu ne wala lu am rek ri Fass ñu dakk Papa saw loolu lan la. waaw loolu mom loolu euh loolu euh réeroo amul ñàkk waxtaan am rek te bu soobee yàlla on va se retrouver loolu du euh, tontu bi du waruma ci tontu tey parce que dafa am lu ma andi mooy victoire xale bi. mais maa xale bi liggéey na parce que dañuy faral di dégg sa déclaration mooy ku liggéeyul doo ànd moom. torop torop ah yow yow donc donc xam nga ne xale bi liggéey na parce que man ku liggéeyul doo ma gis ci moom. kooku. Bécaye maa ngi leen di fay bu baax di tey. lamb ji nga ñëw nga ci beneen anam sañse bi gën a bees affaire yi gën sa diggante ak Dieye lan la non Dieye sama waay la Dieye nit ku baax la et puis kuy dundal làmb la moo tax fu mu dem ñu fekk ko fa lu mu liggéey ba pare la ñu ñaanal ko rek yàlla yokk taxawaayam ñu ñaanal ko yàlla yokk waaye am am làmb joo xam ne nii àdduna ñoo ko soxla woon rawatina axlu muy combat royal bi nga xam moo dox ci diggante Modou Lo ak Ama Balde lamb ji ñu taxaw na yàggu dara ki nga taxawal ñu arrêté ko loolu loo ciy wax père. ah xanaa ñaan yàlla ñu libéré ko rek ñun ñëpp ñu tàllal sunuy loxo comme que wàllu yoon la te danoo war a respecté yoon ñun ñëpp ah ñu ñaan ki mu tooñ mu baal ko ak ñu yor wàllu yoon ñu jéggal lu man de loolu laa ci xam booy. mbir mi daal mbiru ñaan la du xasaraayu du jéng du dara mbir am na nanu ñaan comme que bàyyi nañ ko ñaari at muy daxawaalu muy def lu ko neex ñu bàyyi ko ba mu tëgg làmb ñu door koo jàpp loolu tam day doy waar mais nan ñaan yat ndax yàlla taxawu ko daal ñu bàyyi loolu am waaye mu am leneen loo xam ne ne amaat na ci làmb écurie bu mag boo xam ne ni nekk na écurie Fass en tant que tey ancien ci làmb en tant que un grand connaisseur de Papa Sow poids bu muy posé Gris Fass nga jékki-jékki dégg ni ko dàq nañ Papa Sow loolu noo ko noonoo non dàq nu Papa Sow kenn du ko dàq. Fass ñoo jur kenn du jur doom dàq ko Papa Sow Fass la juddoo ndax baayam def na cinquante ans écurie Fass problème interne la te am naa yaakaar ci sama xalaatu bopp waa Fass dinañ waxtaan ci seen biir récupérer waat seen doom parce que ndax doom kenn du ko beddi. te taxaw fa waaw écurie Fass dara dal leen li leen di dal mooy dal ñëpp bu njëkkoon ba Milan AC moo fi mënoon bu njëkk ba bu ñuy wax football gendarme la nay wax bu njëkk ba ñeneen lan daan wax léegi waxatuñu ñooñu aduna moo demee noonu affaire yi day renouvelé wu mais Fass day ñëwaat day jël place am. kon am nga si yaakaar tey si si Serigne Ndiaye numéro 2 nga xam ne ni waa Fass yëpp a génn topp si ginnaaw. non du question wu yaakaar tey yàlla moom moom ndam mooy maye ndam bu leen maye ndam may na leen ndam bu leen mayul ndam may na leen mayu leen ndam. mais de toute façon Fass dina dellusiwaat jëlaat place am bu soobee yàlla. loolu nga gis. waaw loolu laa gis. jërëjëf Fer gis lan la. waaw maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm bu baax. Moussa Ndoye de forme bi Moussa Ndoye toujours constant lu sa secret. waaw damay gërëm sumay entraîneur rek parce que ñoom ñoo ma tamit ma nangu rek ku si mel ni ku si mel ni Aliou Sarr Souleymane Diaw Père Ngouda ak Moussa Sow ñoom ñoo yor sama prépa ñoom ay préparé si lépp ñu gis Moussa Ndoye New ñoo def tent bi ñëw tey ànd ak loo sodd noo waajalee xale bi tey. waaw waajal naa ko ni ma daan waaje man ak nu ko raw laa ko waajalee indi ànd ak moom ñëw euh, yàlla rek moo des di ñaan yàlla mi des yàlla na yàlla may ndam loolu rek moo fi des. daaw gisuñu la ren ndax mën nañu am yaakaar nga bëre. incha allahu rabi des na si Sa Thiès waaw des na si Sa Thiès. Moussa Sa Thiès pare nga. pare naa si sa Moussa Sa da nga naa faree dañ mars pour nga combat. dañ ko sax bind si dañ ko bind si tëli si tëli yaraax yi xam nga yaraax ko lotissé lépp tëli la léegi dañ ko bind si mur yar si mur yaraax yi Moussa Ndoye Sa wala wala Ana Balance. kon bu dul Sa Thiès soo bëree. déedéet Sa di ñaan may ndam rek may ndam rek ah, mi ndam ndam est-ce que est-ce que xam nga xale bi ngay bëreel. xam naa ko xam naa ko baax a baax. Mor Kang Kang xale bi ngay bëreel dafa garaaw. non xam naa loolu ma ma gën a yërëm foofu. ñu gisoon loo soog di fan yële passé gis nañ ni secret bi lan la parce que waa Yarax ñëpp a ngi xeeñ doole xoolal booy naar. waaw liggéey rek ñun liggéey la ñu xam liggéey dañuy liggéey dina tegal moo tax te instant bii si kanam tuuti bu ñu duggee si géew gi ñoo ci ñoo wax quoi. mais loolu laa ma ci laaj. tey dal waaw dal jàmm. gis nañ laa gis foo ne. waaw maa ngi laxatu rek nekk ci seen mbiri bopp man place yi bëri na wow waaw ñu ngi ci daal ñu ngi ci allah bëgg naa ko pare pare naa tey dañoo namu njuk bi mooy naa rek noonu taala dañoo nekk ay xale yoo xam ne ñu ni oho guy gee ana mbay guy gee mbay noona ana mbay guy gee far yoona ana mbay guy gee far yoona bul ko naaguloo te doo ko Talla Ndiaye xale bi si meeku na mais lu tax nga teel a sumé. waay waay teel a sumé teel a bëre rek. ñaf ko ñaf. loo soog neen dina la tumat na la daan. yaa ma gën a xoom. topp ma topp ma topp ma. taala taala toppal xale bi. xeeru ngor nga bëri démb ñax loo yëg. ma bëri démb daan maa daan tabarke Seydina Mohamed. adduna yëpp xam nañ ne maa daan arbitre bi ne doomu aadama la nit la day juum man nangul naa ko mais dinaa def li ma yoon may ndax dama préparé sama combat ànd sa samay mbokk pendant 4 mois ma daj ay coono xam nga mobilisé gis nañ démb ni ma def stade bi ñëw bëri teg ko si yoon yàlla may ma ndam maa ngi sant yàlla di sant waa Ngor gépp maa daan te incha allahu rabbi dinaa yot sama victoire. dégg naa démb ni nga fanaanoo neexu la. li fanaanoo démb métti na. dama ñibi bekk parce que mbeur boy mbër da ngay def jom bo yembal dañ ko jël mu tok kërëm di wax lu ko neex arbitre siffle muy arrière man suma ma dara lu metti met dama koy jëf ye man demb dama am xol bu sédd parce que li waxon dama koy jëf. xam nga la yoon may. dama koy def lool mo fi andi ye wa mais sama xol dama sédd parce que dafa am lo xamantene yag na ko di wax nena lité amateur stade yi la koy def na promoteur yëngu amna lo xamne bu ko amateur yi déggee wala géwél yi dégg ko rek mobile la bëre. bu combat bi gars wa waa nam nañ ko mo la li ñëwaat. te xamna li ba dégg fi sax biir ñëw da mel ne man ak yow lay doon <laughs> parce que dégg la ci lamu ñu amateur yi ñu naan mobile chat ma la leen oh dugal nañ ma sama koñu xarit <laughs> wa mais lamu wa def loolu. man mom damay tëddee ndax ndaxte làmb li la famille la ñun ñi nga xamni ne ñoo ñun ñoo nekk ci làmb ji di liggéey. ñu nag tey jii lu ñuy lu liggéey yéen ñu koy jox kon faaw ñu doon ay gain. waaw mais yow yow yow weesu Grand Dakar yàlla mooy dogal loolu yow lamb mayu la tur il faut nit ñi bàyyi xel loolu li nga doon sunu borom moo ko def ci yow balaa lamb réew mi xam nañ la lamb da cee participer wala yow nga am loo def ci lamb mais lamb mayu la dara ci tur yee di ñaan sunu borom yokku ko ba lii ngay gàddu tey mu doon bërëb bu ñu lay nga fay liggéey suñu borom am na ko mën na ko yàlla na ko suñu borom def dooley Serigne Touba. sa nekkoon écurie Grand Yoff Mbooloo nekkatu fa tey nga ñëw jege si ko loo yëg. waaw yow waaw loolu sant yàlla la tey lamb ji ñun ñi taxaw ñoo ko préparé boo xoolee moo waral nii ñu ci mel nii yee dëgg mi ngi kayaar mais fii la paree lamb ji daj si coono yu métti tamit ñu am ci yaakaar bu baax parce que xam nañ li mu daj di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam doole Serigne Touba. nga gisee lamb. waaw sant yàlla lii rafet na trop xanaa kay di lancer benn message ak muy problème mu Luc Nicolas di ñaan problème mu Ligue Nicolas bi yàlla ko suñu borom teggi lu métti la parce que tamit lamb ku ko soxla la moom boo xoolee lu ni ñi coow ñaari at kenn mënul def différence daa yëngatu rek mu leer kooku nekkul ku caabi war di féete ginnaaw mais ñi ngi ñaan yàlla suñu borom defal ko jaamu daal barke sëñ Fallou léegi rek incha allah. noo waajalee xale bi waa waaw xale bi waajal nañ ko naajement fu ñu toll arbitre la ñu xaar bu soufflé ñu def li ñuy def ñibbi. mu nekkoon Grand Yoff mbooloo ñëw nekk Kayar tey ñu gis fi xale Grand Yoff mbooloo yëpp ñëw bien vrai que bu ko neexoon ne damay ñibbi kaar ga ma dëkk préparé ko mais combat bi Grand Yoff la ko pare ñoom mobile ñii ñoo ko doon jàppale contact ak ñoom jaata ak ñoom Ousmane Ngom ak ñoom Requin comprendre nga ay ñoom Sikori comprendre nga parce que ak ñoom moo caatu xaar yàlla si poids lourd yëpp ko jàppale contact mu entraîné ba pare gis nga Serigne Ndiaye bu bëree ñu daan ko bu xeexee ñu duma ko daan ko lu leer la loon loo yëg waa taala li bi doon nga noonu yor gàllaaj yi di nga wan Serigne Ndiaye numéro Jackson a nga taala Ndiaye borom lambali oui ba doon làmb léegi nii de. keroog neewoon nga ma xiir bu bees tàq laa indi. waaw dëgg la moom laa indiwaat nag. dinaa ko duma dinaa ko daan nga def ko. moom laa def di wax ku làmb boole la ñu bëree ñoo ngir làmb rek waaw ñoo pour làmb. Jackson secret bi lan la parce que dañoo gis keroog da ngaa sumeeku waa géej waay yëpp ne gongo ak lu làmb ñëpp ne gongo nga ñëw bëre après lépp liggéey la rek ci cadre léeg-léeg nga teg ñun dañoo gëm suñu bopp ci sa saa nuy waar dañuy waaw liggéey moo góor daal liggéey rek. sa adversaire loo koy wax. waaw di ko ñaanal jàmm di wax moom daan la di génn la di ko ñaanal moom andi benn ko ba yàlla may ko ndam. waaw woo nga ko. ah woo naa ko waaw woo naa ko ñu déggoo. waaw woo naa waaw. ñu gis ni nga Jackson dafa fair play. Jackson na may sama sens. Ikir Fass la dugg dóor Pape Ndoye mu daanu. si yoon laa nekk. na ma may sama sens maa ngi combat la. Jackson la wax maa ma doon. Bamba daan sama ñaari doomu nday sang suul ak Pape Ndoye na ma may sens ngir yàlla war a suul yi. damaa sonn ndaw yi. laa ko ndax ñëwee na kuy. barki Serigne Touba nee ji ngay waxal maa ngi nii. ragaluma dara. ndax ñëwee ko kuy. boo bëggee mën nga dóor cinq coups ñu doog a arbitre doog a sifflé. kon baax rek kon dimbali ma rek bàyyi. sens bàyyi ma ma loxo. jooju jublu ko na wat arbitre na wut kii promoteur. waaw ah. promoteur bi nekkul da na lekk avance yi ñoo ma yónni. ma nee nañ ma jëlal on daanu. Pikine booy daan naa moom mii barke Serigne Bamb revanche la ñett ñett revanche laay bëre ñett. ah ñeme ndax ñeme nga laabale te nee na te yow nee nga xiir bi Fass <laughs> moom mooy mooy laabale. Thiaw Sakhir ñëw nga fa xam nga nu mu demee mafia bi dafa yaatu. ki attanul lool. barke Serigne Bamba. supporter yaa ngi waa Medina waa Ngaraaf waa Tefes. oho sen yaaba di ca laale laale baaxu ko woon lambi jigéen sax jeex na ayey lamb bu ca góor nekkul secret bi lan la sant yàlla rek ànd ak sénégalais yi rek amateur yi lamb mi ngi soxee bi tey mais loolu leer na loolu wax naa leen ko waxati leen ko ne leen lamb man lañuy xaar mu tëj man lañuy xaar waaw ren lan lañ mën a xaar lama daan def rek lepp and ak yar ak teggin jox len lamb ju neex amateur yi xam ne lii ma neex na len numa len jaay bien ki xolal fi man rek a jaay bien 10 francs ci lamb ji waaw lo ci mel barke Serigne salim mbake 10 francs la jaay bien man kese jen ñu dégg ren jen dafa fassé def innovation yu doy war lool lan la parce que jen tam nañ muy tegg bokk nañ ci bokk na ci ñu fi njëkk innové muy tegg teg orchestre lepp ci lam mako ko ma def bi combat deng ma ma ma même flyers yi ñu joxe mako indi ci làmb kon làmb duñ ko yak dañ koy défar làmb ñu pour ñun la ñoko bëgg su ñoko ko nañ sant yalla bu baax dal sant yalla jëye ngi arbitre ba ngi nonu sifflé taala ñay malik mo arbitre lamb ji lamb ji nga xamni ni mo dox ci digënté Lo Sodou miñu fédé chamoñ ak Mor Kankang miñu fédé féete ndeyjoor Mor Kankang ko nak Bawol gi mi ngi tasante ki nga xamni mo gi ay lamb ji lamb ji du yomb tantem sa yoon la lo Sode su daanee day nek fu mu nekkon dem bari jeg ay morom ndax tamit mi ngi bëgg a ci lamb Mor Kankang nak su day dem تناخ بنغرة في أيدينا مكتة فيكتوريا مصالو خالبي نجلو تو تالا خدان كيما خنا خدان دسا بوغ نيغي خيخ تسوف تالا نهاري خلا يانغي خيخ تسوف نيغي خيخ تسوف موركان كان بادو كاو موركان كان مينغي جاب ريك واي كوي سي اگيم بادو واتش تالا بغازو تسوف دا خورو ماتش ku yooyu te suuf d'accorduma ci Mor Kanga nee na ko kaay si biir géew gi fii lay xewee Kanga mi ngi fayu mi ngi door ci suuf mi fayu wàcc na wàcc na luy xew luy xew song na xar na ko daan na ko laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah mi ngi baara baara mbay mi baara mbay waaw waaw waaw waaw waaw waaw Baara Mbaye Mor Kankang waay laay laay la laa xale baa ngi ko nag bawal gi Kankang mi bàyyi leen ko xel Talla kay ñu dem ci moom kii ñaanuma yàlla bilaay mu téye ba na Serigne Touba léegi wax naa ko bu ñu jàppante rek coow li jeex. ñu gis ngeen ci saako yi nga ñoo dugg ci biir géew gi loolu lan bu rek moom. da doon daw bu rek moom rek xam ëpp ko doole tamit. Mor foo waay. soo soxla. waxal grand combat grand combat lii. Talla Ndiaye Talla Ndiaye waa Fass a ngi doon di tuus. Talla Ndiaye ñoo ngi neex Onde le Fou le grand champion de Pikine Ada Fass nga duma ko daan ko ñu gis benn Onde le Fou niwlu Onde le Fou secret bi lan la. waa liggéey rek toog di liggéey waruma bëre ñii ñu naan làmmiñam la yor day wax rek Ada bi mu koy jël dama ko jëlon pour juste que ni xamal nit ñi ni nekkul waaw moom moy lool quoi lima doon wax deug la mais place bobu buñ ma fa tek quoi place bobu non place Ada buñ ma fa tek on ne la ful nangu ay ati ati at bëreewul nan lañ ma jox gaañ te te bëre deful ben performance. wa xam nga loolu dama da am lu doon wax ni ma wa ñi ma war a bëreel nañ ñëw bëreeg man ñu won loolu quoi est-ce comprendre nga looloo waralon toogaay bu yag bi mais Ada fas bi mu koy jël boy bu nekk ci yoon la def ay preuve am ay moroomam ñu ni koo daan te ñi muy dab yin mënuñu koo daan ma jëloon ko pour wane ci sam bopp du ma moom tamit quoi booy bu baax la booy bu yaru la mais dama doon wane sam bopp rek ci combat boobu. loo soxla fu mu ne nii. booy bi dëkk jàmm gën na ñëw ma may ko sens. na maama lamin dama koy may sens. maama Lamine maama. Lamine dama koy may sens. bu bëggee ma may ko sens parce que man waruma bëree ak moom man foofu moy bëree ay nees laa war a bëreel ay sita ay fëgale ñooñ laa war a bëreel.

kuñ fi ëmbaloon sa yaay du la neex dof yi ay yaayu jàmbur lañ nañ bàyyi dof yi ñuy ëmbal man Ansoumana Dione moom mooy sama référence musuma koo gis teguma ko bët bëgg naa ko gis nag dafa jot te dinaa ko wër ba ba gis ko Ansoumana Dione tamit xeexal dof yi parce que moom munoon na dem toog ruqam dund dundam mais dafa jug pour xeexal ñi nga xam ne amuñu baax lu mu wax dëgg la man kookoy sama référence. gars yi ku ñu ëmbaloon sa yaay du la neex bàyyi leen dof yi ngeen di ëmbal maa ko wax. ku ci contane ya xam ku ci mer ya xam beye na ñep Malick ngi sen digante mi ngi leen di wax li lamb li lamb nang ak li lamb bañ soo leen jàppee yëkkati saako yi suma ma na ngeen bàyyi sifflet bi dal mo leen di bolé mo leen di takalé hay Malick ngi avertir ki nga xamni ni Libidor bu xiyar dang ka soti galaaj ñaari yoon. ak sama bopp ñëpp. ko ñu ngi leewtoo. tey dimanche 22 décembre 2019. Dieye fi woo. lamb ji dox ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2. ak Libidor bu Kayar. Libidor moo nekkoon Grand Yoff mbooloo léegi mi ngi ñaari mbër yaa ngi di leewtoo Serigne Ndiaye numéro 2 seen càmmoñ Libidor bu Kayar seen ndeyjoor ngi leewtoo di xoolante ñoom ñaar Serigne Ndiaye maa dafa bëgg dem saa ñu leewtoo ba si yàgg Libidor def retraité koor delloo ko ci biir géew gi ay waay ji lamb nee naa la lamb ji du mën de ndaxte ñoom ñaar ñëpp ay mbëru mbapat lañ yàgg nañ tase si mbapat yi Adrien Senghor terrain gal gi ak ci village yi Serigne na léegi Libidor déplacé Serigne Ndiaye mbaadu lu mu jàng la tari combat bi tubaab boobu ñuy wax ayus moo ko doon ko de boxe tey jii lamb tey du yomb diggante la Kayar ñu ngi leewtoo ñoom ñaar sànni na léegi oh Serigne Ndiaye gi noonu moom tey ñu xam bu dañoo bari Gris Bordeaux Tapha Gueye forsa Forza 1 Forza 2 ñu ngi xeex tase nañ Libidor tey Diam Terry kay indi ñu ngi leewtoo ñu ngi xeex ñu ngi doorante door na ko dóor ko mu daanu laay laay la laal da ngaa dóor muy tartari mu pof ci kawam Serigne Ndiaye numéro 2 mi newoon naa leen nu mu jàngalee tari xeex ba ici comment tari comment tu l'as préparé eh comment tu l'as préparé alors eh, Aïs tu me l'avais dit comment tu l'as préparé ah on l'a bien préparé il, hein? il a fait, fait exactement ce qu'il fallait il a mis le pied à l'extérieur ouais. et il a travaillé son bras avant il a sorti la droite il l'a touché il l'a fini en lutte il a été concentré. On a bien travaillé grâce à Joseph Diouf, Tafa Assou et Abdou On a fait un travail d'équipe. Il a donné un petit crochet droit. Oui, on avait travaillé crochet droit. Oui, avec le direct. Mais c'est un travail d'équipe. Donc Joseph Diouf, Abdou Gay, Tafa Gay, et toute l'équipe de face. Avec lui, on va construire l'avenir. Sur 3 ou 4 ans, on veut qu'il devienne le roi des arènes. Allez, projet c'est quoi

crochet droit bi dañ koy liggéey le pied à l'extérieur petit crochet daxaa dóor waa tartari muy waaj a daanu saa yu mboof mu daanu Serigne Ndiaye na ngeen xel el du courage parce que lamb du fen Serigne Ndiaye dafa liggéey dafa daan lii nag mooy lamb nee Grand Théâtre point TV lu gën a authentique ci lamb lañ jox rawatina ci actualité waxatuma la ak information yi ba du 100 pour cent découverte doon à la découverte de tout ce qui est information de tout ce qui est actualité Serigne Ndiaye numéro 2 xel waaye sama waa ji maa borom Dubaay ak xam ne nii moom mooy Mansour Kane bëgg naa leen waa Rof